waaw président Ameth Thiou tey El Vision dafa ñëwoon set si la bëgg a def ak yow benn interview boo xamante ne ñi euh, nga xamante ne ñooy safoo El Vision Médias yàgg nañ ko réclamer. ok président bëgg naa tamit euh, nga indil ma tuuti leeral ci sa diggante ak euh, première dame muy Marème Faye Sall ndax gis nañ nga defal ko benn woy boo xamante ne macha allah mi ngi cartonné fii ci Sénégal nga indil ma leeral daal sa diggante ak Marème Faye Sall lan la. jàmm yar. mbaax tabe jullit li mu doon ma gis ko ci moom ndax yëfi jullit la def mu doon ko simple doon soxna su dal ma xam ni kii daal ku xamul xamul man du ma politique waaye politicien bu ma woon li ma war a woon am naa droit ànd ak yow kenn moom ma fi laa dëkk ci dëkk bi damay tukki te xaw ma leen xew te xaw ma leen di dem fu ne te xaw ma leen kon du ñoom ñooy tax ma am fu may yem saa ñoom sunu borom mi may defal loo xam ne maa ngi ciy dund muy politiciens yi muy ñëpp ku ci taal sa oto ma taal sama oto bu nu dajee dina ne kii mooy Ameth Thiou yàlla defal na ma loolu sant naa ci yàlla kon lu ma xeeb sama nga doon xam fi nga bokk mooy fan première dame ci mbaaxam ak yaram ak julliteem ak yërmandeem moo tax ma naw ko eh, boo ko woowee ci yàlla rek muy la jaam ñi la yàlla booleel ñuy def lu baax dee ko wax moo tax première dame gërëm nga ma koy gërëm doyul man dama koy delu njukkal ma way ko nak way ba nak mom xalé yi bëgg nañ ko lool te génnagul domam di suma fans muy Amadou Sall di and ak suma rak Mara Ndiaye ak Idi kale man amet Thiou ma jël sama engagement personnellement wax koko. woy ko lu ko ci góobe nag ga bëgg naa xam tamit président Ahmed Diouf kan lay jàppale ci élection présidentielle yii di ñëw euh, muy euh, waaw xam nga njiit moom sàkkul boppam yàllaa ko sàkk yi am solo mooy ñu nga jiite na nga leen yërëm xamal leen tett leen yor leen. président Macky la fi yàlla teg. moom day liggéey li muy liggéey jóge fi keneen ñëw. moom la fi yàlla teg te sunu boroom. mo xam kagn la fi joggé bo amé sa lu bax yéne ko réew mi te réew mi tax la jog tax ko ko wala nga xélal ko ko mu def ko ba kérok mu fi joggé mom man amé cu président Ablaye wad mo nékkon sama président mom la gëm ci mourid gi mu doon talibé gi mu doon tabé gi mu doon yaakaar na ni 2007 mo nékkon directeur campagne Ablaye wad té cion mo teug concert yu bari té président Macky Sall moom moo kon and ak président Macky Sall yàqul ci sama mbir dara président Macky Sall khoussal Jackson Ahmed Thiou Jackson nga xam mo mo représenter Michael Jackson fi ci Sénégal ma ngi ni yow la ni andal nga gañe liggéey yéene jël réew mi doyal keneen gagné la nga jox ko réew mi waaye sa ñaari mandat moom ci kàttan suñu borom suñu borom dina ko def nga gañe ci kàttan suñu borom géwél gi salaam gépp ànd ak yow ak El